Assalamu alaikum Boki Dakar man la Barthélémy Toye tête de liste coalition Sàmm Sekadou. Kàddu mais ñëw tay di euh, intercoalition ou Dakar mo xam Sàmm Sa Kàddu moo xam euh, Takku Wàllu mo xam euh, di parce que léegi lañ ma wo ne ma campagne tey noroon dem ak euh, suñu caravane fële bir euh, Grand Yoff ak euh, Parcelles Assainies ñu nonon tamit dem Patte ñu né préfet de Dakar nee nañu dafa am benen coalition moy coalition Pastef ñom ñoo ñu fay jitu ma bëggoon wax ci leer déjà préfet de Dakar lu mu wax dafa tagul ci yoon jaaduwul dañuy waxante dëgg te tooñ baaxul parce que ministre de l'intérieur bu mu waxé dañ ko jox suñu itinéraire man duma ma tête de liste département de Dakar wante tête de liste département de Dakar ak ñu mu àndal ñoom ñu nangu di joxe ay itinéraire lu ma doon bañ mooy lii mooy daanaka demee dañu génn bi Dakar mbooloo bu tàkku daal di ñu topp euh, mu daal di jaaxal nit ñi tey nag ñu nekk euh, comme ñoom tant que cokkaasuñu tooñuñu wutuñu xeex wutuñu deret euh, duñu am xel bu dal ma bëgg nag wax ci leer ñaari fan nekk des maa ngi jëkkalu ci turu intercoalition bi yëpp maa ngi jégalu mbokk yi Grand Yoff yi ak mbokk yi Parcelles Assainies ak mbokk yi Patte d'Oie parce que wax dëgg yàlla euh, bërki deme ba tey ñu ngi ci liggéey pour mun ñu dalal wante comme nu ngeen ko xamee dafa am ñu nekk ci tooñ ñoom nag ma bëgg nag wax ci leer parce que bëgguma sore ci wax ci am na ñu fi wut sarax bi Dakar te sarax bi ay néew la te ñu ngi toll ci juróom benn néew ma bëggoon wax ci leer te ku may waxal moom may dégg benn néew ko fi am benn genn wàllu néew doo ko fi am comme yow da nga gëm ni que lu la neex def euh, lu la neex wax parce que da nga yor nguur mala kay waxat tay tey ci bés yi lu nga nekk ni di ko rëccu defal lu la neex andal ci ak ku la neex nak ya xam sa ay ministre de l'intérieur ya xam sa ay préfet ya xam sa ay gouverneur parce que fu mu nekk ni duñu ñu wax ci parce que kilifa da kay mët kilifa moy lu tubab di woy autorité mais fi lu ñuy gis tay moy ay autorisé motax may sàkku ci mbokki intercoalition bi il ne faut pas répondre à la provocation Waji ne dafa bëgg a këpp suñu yelluwaan buñ ko nangu des day deret ak te dimanche inshallah, allah képp Dakar te démocratie jam, salam. te nyorle, li opportunité am pour dalti soppi lu fi am parce que lu ñu fi bëgg a woote tey Sénégal mooy guerre civile guerre civile mooy ñit te yàlla jox ko nguur mu nor a liggéeyal askanam ak liggéeyal dëkkam mu nekk di wut deret ak ay néew dama bëgg a wax ci leer fii ba campagne bi jeex su nekk juróom benn néew yi ngay wut mën na la baaraam sax doo ko fi am yaa xam nag fan ngay jaar ak ban sarax ngay génn ba am fi ndam kon nag askanu Dakar fa laa bëgg a yem ci wax ci bañ a bañ a bañ dugg ci yenn yi wante na ngeen xool jikkoom te ngeen xool doxalinam ak taxawaayam kii dafa am lu muy wut dafa am lu muy wut te lu muy wut bu ko jox te dimanche na koy sàkkwaat ci yéen na ngeen ànd ak fulla ak fayda te lii na dak Sénégal ci yéen la des mbokk yi nag ñu leen di jox dig daje ci 17h ci siège u sàmm sa kàddu mooy siège u taxawu Sénégal fële ci kër xalifa Sall te dinañ wuti beneen itinéraire naam dëgg la liggéey bi daanaka xaw na jaxasoo wante yàlla ñëpp la fi nekkal dem ba liggéey nañu ci caravane bi liggéey bu am solo macha allah te tey tamit incha allah même su nekkee liggéey bi xaw na jaxasoo tuuti wante nañu dem feneen te bañ leen topp bañ leen topp parce que loolu la suñu kilifa yi di xaar ci ñun loolu la suñu doom yi di xaar ci ñun te ëllëgu Sénégal nañ ko sóor bu baax a baax te bañ leen jox lu ñu bëgg lu ñu bëgg mooy yee fitna taal réew mi pour mën a yu toog ci dëkk bi parce que amuñu xam-xam mënuñu dañu tële teg ci doon ay dóorkatu marto ma leen di gërëm di leen di sant borom mbokk asalaamaaleykum mbokki Dakar man la Barthélémy Toye Dias tête de liste coalition sàmm sa kàddu mais ñëw tey di waxtaan ak euh, mbokki intercoalition bu Dakar moo xam sàmm sa kàddu moo xam euh, takku wàllu moo xam euh, jàmm ak njëriñ di leen di euh, euh, jëgalu nag ci baat yi parce que léegi lañ ma woo ne ma suñu campagne tey noroon dem ak suñu caravane fële biir Grand Yoff ak Parcelles Assainies ñu ne tamit dem Patte ñu ne préfet de Dakar nee nañu dafa am beneen coalition mooy coalition Pastef ñoom ñu fay jiitu ma bëggoon wax ci leer déjà préfet de Dakar lu mu wax dafa tegul ci yoon jaaduwul dañuy waxante dëgg te tooñ baaxul parce que ministre de l'intérieur bu mu waxee dañ ko jox suñu itinéraire man duma tête de liste département de Dakar wante tête de liste département de Dakar ak ñu mu àndal ñoom ñu nangu di joxe ay itinéraire lu ma doon bañ mooy lii mooy daanaka demee dañu génn bi Dakar mbooloo bu tàkku daal di ñu topp euh, mu daal di jaaxal nit ñi tey nag ñu nekk euh, comme ñoom tant que cokkaasuñu tooñuñu wutuñu xeex wutuñu deret euh, duñu am euh, xel bu dal ma bëgg nag wax ci leer ñaari fan nekk des maa ngi jëgalu ci turu intercoalition bi yëpp maa ngi jëgalu mbokk yi Grand Yoff yi ak mbokk yi Parcelles Assainies ak mbokk yi Patte d'Oie parce que wax dëgg yàlla euh, bërki deme ba tey ñu ngi ci liggéey pour mun ñu dalal wante comme nu ngeen ko xamee dafa am ñu nekk ci tooñ ñoom nag ma bëgg nag wax ci leer parce que bëgguma sore ci wax ci am na ñu fi wut sarax bi Dakar te sarax bi ay néew la te ñu ngi toll ci juróom benn néew ma bëggoon wax ci leer te ku may waxal mu may dégg benn néew doo ko fi am benn genn wàlluwu néew doo ko fi am comme yow da nga gëm ne ni que lu la neex def euh, lu la neex wax parce que da nga yor nguur ma la koy waxaat tey bës ci bés yi lu nga nekk ni di nga ko defal lu la neex andal ci ak ku la neex nag yaa xam sa ay ministre de l'intérieur yaa xam sa ay préfet yaa xam sa ay gouverneur parce que fu mu nekk nii du ñu raayati wax ci parce que kilifa da koy mët kilifa mooy lu tubaab di woy autorité mais fii lu ñuy gis tey mooy ay autorisé moo tax may sàkku ci mbokki intercoalition bi il ne faut pas répondre à la provocation waa ji dafa bëgg a këpp suñu yelluwaan buñ ko nangu waa ji day wut deret ak néew ndax sarax buñ ko dikk buñ ko jox te dimanche inshallah, allah képp ku Dakar te démocratie jàmm dëkkandoo salam te afia ñor la lii mooy opportunité bu nga am pour dal di soppi lu fi am parce que luñ fi bëgg a woote Sénégal mooy guerre civile guerre civile mooy ñit te yàlla jox ko nguur mu nor liggéeyal askanam ak liggéeyal dëkkam mu nekk di wut deret ak ay néew dama bëgg a wax ci leer fii ba campagne bi jeex su nekk juróom benn néew yi ngay wut mën na la baaraam sax doo ko fi am yaa xam nag fan ngee jaar ak ban sarax ngee génn ba am fi ndam kon nag askanu Dakar fa laa bëgg a yem ci wax ci bañ a bañ a bañ ci yenn yi wante na ngeen xool jikkoom te ngeen xool doxalinam ak taxawaayam kii dafa am lu muy wut dafa am lu muy wut te lu muy wut te dimanche ma koy sàkkuwaat ci yéen na ngeen ànd ak fulla ak fayda te lii na dakk Sénégal ci yéen la des mbokk yi nag ñu leen di jox dig daje ci 17h ci siège u sàmm sa kàddu mooy siège wu taxawu Sénégal fële ci kër Khalifa Sall te dinañ wuti beneen itinéraire naam dëgg la liggéey bi daanaka xaw na jaxasoo wante yàlla ñëpp la fi nekkal dem ba liggéey nañu ci caravane bi liggéey bu am solo macha allah te tey tamit incha allah. même su nekkee liggéey bi xaw na jaxasoo tuuti wante nañu dem feneen te bañ leen topp bañ leen topp parce que loolu la suñu kilifa yi di xaar ci ñun loolu la suñu doom di xaar ci ñun te Sénégal nañ ko sóor bu baax a baax te bañ leen jox lu bëgg lu bëgg mooy yee fitna taal réew mi pour mën toog ci dëkk bi parce que amuñu xam-xam mënuñu dañu ci doon ay marto ma leen di di